ñu waroon wax ñi nga xamante ni mooy sama naataango yi di njagawaad ak Lamine Ngom wax nañ ko au conseil bii ñu génn ñu doon ci fal barka démboo Njaay dañoo gis ni benn nitu APR bokk ci benn militant APR bokk ci ñu ni dañuy defar yeneen soixante-dix yoo xamante ni président moo koy falal boppam ñu ni APR Thiès kenn bokk ci ñu ni nag léegi président ñu ni Thiès am na coow ni Dakar amee coow fépp am coow président ni ñu leen waa Thiès da ngay na ñàkk fayda laa jàpp ba ni dinaa leen jël nit mu falal leen loolu damay jàpp ni wax président mënul wax loolu kon damay jàpp ni wax ji ci ñeneen la jóge waaye président moom mënut a tëb naan waa cees dinaa jël diw mii mu jiite leen wala diw mii mu jiite leen fii Kajoor la bañkat moom booy wut kuy mën a bañ dëgg ñëwal ba Thiès loolu wala yéen ay ragal ngeen dañ leen a xam ci ragal kenn da leen a xam ci ragal ku weddi nañu laaj ab Abdou Diouf kon ñun kenn du ñu sàkkal ki ñuy jiite suñu bëggee na ñëw jaay carte ñu jaay carte ñu seet kuy jiite waaye moom toog biir dakaar li nu gën a naqari nag ñu ni parce que man ma ni président moo ko def ba léegi ñu ni président dafa woo ñeenti nit bàyyi yeneen responsable yi nekk fii ku mel ni docteur Pape Amadou Ndiaye lu tax mu ñuy woo duñ ko woo ku mel ni Omar Diop ku mel ni Omar Diop ku mel ni ku mel ni ku mel ni ku mel ni ku mel ni ba ñëpp mat bu ñuy woo ñëpp la ñuy woo ñu waxtaan da ba d'accord ci dara mais mënuñoo toog fii ay journaliste bind seen bind ñu ni diw la ñu woo ak diw ak diw ak diw pour ñu ni ñoo ñoo ci loolu damay jàpp ni président du ko def te damay jàpp ni parti kenn du ko administré par la presse ñu toog fii ñu ni militants yi dañ leen di wax ci presque yi di wa leen jiite ñeen ñu ni militants yi wax delloo non war na jeex président war na woo njabootam déglu leen wax ak ñoom ñu wax ko ñun lii la bëgg nii ak nii ak nii ak nii mbir mi du cer Thierno Sall contre Siré Dia mbir mi se c'est noo sàll contre waa Kajoor waa Thiès yéen yéen ñoo lànk ba wut ku ñu lànk le jiite tey jiite wu ñu ëllëg si l'APR doit faire face à l'APR l'APR fera fas à l'APR waaye duñ ko nangu. président nag ñu ngi koy wale sunu appel du ñu séddale du ñu deltu ginnaaw ci combat bi sunu combat la tey lañ koy doog a commencer ce monsieur là ne nous dirigera pas du ñu jiite am nañ ci sañ-sañ bu fekkee dafa bëgg ñu jiite ñu nañ ñëw ñu jaay carte ñeme nañ ko. nañ ko défier fii ña ñëw jaay si carte su bëggee na ñëw ñu jaay carte Dakar ba mu tàngee président dafa génn ni kenn jiitewu fi te man damaa jàpp ni Thiès it kenn jiitewu ko ba keroog may dégg nag président di ma woo naan ma ceer noo ko jiite bu boobaa mun ko tontu waaye jàpp ma ne président dina woo fii kenn ni ko Thiès diw moo ko jiite day jàpp ni nit ñi suñu amee consensus ci dara ñu loolu ñu liggéey ci kon boog lii daal lañ leen koy mën a wax. bis ni tey ñi ngi leen koy wax ñu gën a taxaw fi ñu taxawoon bu ngeen delloo ñu wax lañ doon waxaat ñun ñi ñaax nit ñi ci ñu wuti carte yu bees yi binduwaat ci kii yu bees yi informer comité yi que ni nit ñi war nañoo dellu bindu ci carte yu bees yi yooyu ñuy bindee sous préfet ba ñuy bindee espace jeune waaye daal lu ñuy wax it ñu wax ni ñun kenn jiite ñooy tànnal suñu bopp ki ñu jiite loolu daal moom lañ ci doon bëgg a wax mu leer ci boppu ñëpp que ñun cees que ñun militant APR yi nekk Thiès nee ñoo lànk kenn du ñu tànnal ku ñu jiite Thierno Alassane Sall jiite tey jiite suba jiite wuñu ginnaaw suba te duñu mës a jiite wu mu. wala Augustin nangu ko wala keneen nangu ko militant yi ñoo nanguwul. nanguwul loolu parce que du ñu nangu boo jëlee ku mel ni Siré Dia nga jël ku mel ni docteur Ndiaye ñoo ëpp militant Thierno Alassane Sall actuellement à Thiès mais nan la fan ngeen gisee minorité buy jiitee majorité amul fenn il est kon mënul jiite majorité gis nga bu ko ñooñu buñ ko nangoot militant yi nanguwuñ ko kon président ñu ngi lay ñaan ñooñu ay responsable lañu bis boo woowee di leen teg na nga leen teg lu ñu mën parce que boo woowee kilifa wax ak moom mënula la défier danaan la li nga wax dinaa ko jéem a def mais est-ce que kooku mën na contrôler militants yi ni leen fii laa bëgg président jaar fu te noonu neexu leen mënul nekk. non borom kër sa njaboot boo leen di jëmale da nga leen di jëmale fu baax mais boo leen dee pousse pour jëmale leen si ab teen bu yàggee kat di nga gis njaboot gi daal di rasu siisu. parce que nag kenn du ku nekk sama bopp ma la gënal du bëgg du bañ naa la kenn du nangu nit di la bëmax di la bëmax ci teen nga fay dugg te loolu la ñu gis voilà loolu la gis président moo tax duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg loolu wax nañ ko fii ñëpp wax nañ ko kon nañ xam ne loolu lan moo leen fi dajale tey ref militant yaa ngi nii dégg ngeen ñu wax ñëpp bañ nañu kon Thiès ñoo bañ du Sira ja moo bañ du docteur njaay moo bañ du kenn moo bañ militant yi ñoo bañ loolu lan leen wax di leen mastawu ci coono yi di leen jaajëfal aussi ci nangu gi ngeen nangu ni alliance pour la république mooy sunu parti moo ñu ñor ñun ñëpp di leen sant aussi ci wuyu bi ngeen ñu wuyu si di wax nag ni tey nii ñu yeewoo ñun Cees ci suba ak léegi neexul lu waral loolu mooy dañoo xëy. gis à travers la presse ñu ne kat am na ay nit yu ñu tànn pour ñu jiiteel ñu fii ci à Thiès ñu ne loolu dëgg la dans le département mën nañ saluer ni kat loolu fa nekk wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko parce que ñun APR rek moo ñu ñor mais nag dans la commune y a problème bi fi am nag ñun Cees ñun ñëpp ko seetlu benn nit kese la man damay wax li nga xam ne moom moo am te yàlla tax parce que man tout le temps ma wax ko je le réclame haut et man président moom ma ñor le président de la république Macky Sall mooy suma leader mooy suma busol mooy sama idole man moom laa gëm te lépp lu ma xam ne day raam jëm ci ñag bi dama koy alerter damay wax te parti bi tax damay wax te président tax damay wax te yàlla tax. kii nga xam ne tudd nañ ko muy Thierno Alassane Sall mu nekk nit koo xam ne aussi nit la ni ñun ñëpp kenn bañu ko parce que nit kenn du ko bañ yàlla nee na lim bind yëpp nit a ko ci gën a moom la ci gën a bëgg mais ay jikkoom dafa méngoowut ak jikko yi nga xam ne sopp nañ ko ci leader ñu ne nit kooku. nga xam ne moom kax fay boo xëyee tey waa réew mi yaa ngi leen gis ñuy jubilé parce que nee nañ kat ñoom bu ñu sañoon sax ñu indil leen fi kooku parce que moo gën a cuune ci ñi fi nekk ñu ne nag kooku kooku buñ ko indee kees samp ko ñun daanaka jaratul sax ñu yem yeggale ji combat bi parce que daanu nañ ba pare parce que kenn koo xam ne ba parti bi sosoo depuis 2008 yow lañ dénk coordonnateur national des cadres est-ce que kenn moo mës a gis ci yéen wala ci cadre Thiès yi kenn koo xam ne woote nga ne Thierno Sall moo dajale cadre yi di waxtaan ak ñoom est-ce que gis ngeen benn yoon au niveau national Thierno Sall yi réussir benn prouesse au nom de la structure des cadres mais kenn koo xam ne. dénk nañ la ministère bu ëpp solo mën naa ne ci ministère di yi yekk ci gouvernement muy ministère des infrastructures et des transports en 2014 nga dem élection locale sur 22 bureaux de vote mënoo cee gagné benn benn bureau sax kooku est-ce que kooku leader la. non kon camarade lii duñ ko day duñ ko nangu lii dafa doy ñoo lànk ñoo bañ parce que nag parce que nag nañ waxtaan waxtaan wax dëgg ca la olof nee na. bëgg dëkk ki pël taxul nga naan ko dinaa la bootal say sëll ñun parti bi lañ gëm ñun ku ñëw ci nga ñu fekk kuy dem ci nga ñuy ba ñun Macky Sall lañ gëm mais nag yaakaar naa ne président joxuñu ko information yi mu war a jot yaakaar naa ni le président n'a pas reçu les bonnes informations donc il faut que ñu jóg pour taxaw wallu cees wallu APR wallu la président de la République loolu moo ñu fi indi tey dama daa dégg dama daa dégg ñu euh, ci Nicolas Sarkozy mu naan l'Élysée isole mais tey dinaa leen nii nag le boulevard de la République isole je diir parce que tey suñ xoolee ba kenn koo xam ne boo génnoon léegi def micro trottoir sur cent personnes quatre-vingt-dix yi dañ naan la cam wax dëgg yàlla bu ne leen moo leen jiital loolu mooy mooy jaratul ngeen di dem lan la fi réussir à lan la fi def à lu dul tongook nit ñi xuloo naak Augustin Tine xuloo naak Abdou Mbow xuloo naak docteur Ndiaye xuloo naak Siré Dia xuloo naak Lamine Ngom xuloo naak Madaabo xuloo naak ñëpp kon kooku mënta jiite kenn parce que nag tey tey bu bëggee jiite nit ñi faa woo leen waxtaan ak ñoom te moom nee na gëmul kenn ku dul boppam gëmul sax président de la république parce que nag démb yàggul ah ñi ngi fàttaliku li mu doon wax ci deru président ñi ngi fàttaliku li mu doon wax ci deru njabootu président ñi ngi fàttaliku yeneen ak yeneen yoo xam ne jëf na ko ñu fekkee wax na ko ñu dégg ba ci élection locale yi diviser bi mu diviser le parti moo tax ñu ñàkk suñu élection locale yi kon kooku tey bu bëggee jiite parti bi ah yaakaar naa ni nag loolu moom mu wax dëgg yàlla njaw dina desim xandim donc ma bëgg leen a wax ni ngeen ànd ak dal mais ñu def un bloc soudé xam ne kii kenn duñu ko imposer duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que APR tey mer na mer goo xam ne yaakaar naa ne moom bu duggoon Thiès sax du yegg si Thierno Sall moom ñu ne demal diriger Thiès bu yegg si commune de Thiès sax du ko romb te duñ ko permettre te benn activité mu def ko fii ci dans la commune au nom de la au nom parti parce que nag mën nga moom sa oto mën nga moom sa kër mën nga moom sa sa sa sa sa ministère wala nga moom sa lu la neex mais làmmiñu nit ñi moomoo ko jëfu nit ñi moomoo ko te mën nañ laa pistonné mën nañ laa yëkkati mën nañ laa defal façon wu ne comme li olof di wax rek ginnaaw mbott moom loo ko tooj tooj tooj boo bàyyee mu delluwaat suuf kon kooku mënuñ koo sang defar ko ormal ko ba mu ñëw nekk njiit fii parce que à Thiès ñun aw ñu un problème de leadership ñu nous avons un problème de manager ñun manager lañ amul fii nii te kooku ñu yaakaar ni moom bu ñëwee dina defar mbir mi yàgg nañ ko ne yaa jiite Thiès te mësta réussir dara même biir këram bu ñu yóbbu woon élection yi bu ñu defee woon élection yi biir këram jër urne yeeg yooyu def ko ci biir néegam waat naa ko ci yàlla bu demee day ñàkk parce que jubóowut ak sax waa këram kon kooku ñun ñu ko dara c'est un gars de la société civile moom nee na société civile la bokk ni ay moom jéemul dara ci parti bi waaye ngir yàlla ñun parti bi lañ gëm ñun am ñun ba ñuy ndaw ba léegi ci parti bi lañ nekk ñun parti bi yàkkal noonu lu ne parti bi xañ nañu lu ne ñun dañoo daw guddeeg bëccëg suba ak ngoon ngir parti bi kon tey bu ñu ko yàqal nañ ñu bàyyi ñu yëggal suñu liggéey gunge suñu président parti li muy def ci réew mi soxla na ko ko wane te du moom moo koy wane. parce que du wax ba tudd président defu ko nawle boppam rek la gëm comme boppam la gëm mbala ya na dem ak boppam mais nañ ñu bàyyil suñu parti jàpp naa ni nag jàpp naa ni nag luy jot jot na dama bëgg kenn ku nekk yéen ngeen am ci fulla fayda kenn ku nekk nga delluwaat sa base dajalewaat say militants waxtaan ak ñoom fan yi as néew dinañ leen woowaat teg suñuy plan d'action mais tout sauf Thierno Sall la ñuy wax fii à Thiès tout sauf Thierno Alassane Sall tout sauf Thierno Sall loolu dañ koy wax mu dee bu leen neexee nag bu ngeen jógee waxaat ku leen neex moo nekk ci ginnaaw nit ñi man Lamine Ngom benn leader nekkul sama ginnaaw man ma seule sol c'est le président de la République Macky Sall je le clame haut et fort man président laa gëm moom laa yaakaar moom laay noyyee moo tax su ma gisee lu koy yàqal damay bàyyi su ma yitte ñëw parce que yaakaar naa ni ñi nga xam ne tey président jox na leen te bëgg nañ koo dimbali tëgg ñoom ñoo ko waroon njëkk a wax lii mais bu dee dañuy ne dañuy defar APR suñu waxee nga woo deux deux palais trois tonnes yi au au palais yaakaar na ñooñ la ñooñu duñu APR APR a ngi nii toog ñooñu duñu APR APR a ngi nii toog te nous n'allons jamais accepter l'inacceptable nous nu nous nu allons nous battre jusqu'au que ni lii fi lii lii lii fi lii ñu wax ni moom moo am billaahi duñ ko bàyyi mu sedd dinañ ko xeex ci zaahir xeex ko ci baatin loolu laa amoon lu may wax pour l'instant di leen jaajëfal di leen sant di leen gërëm di leen wax ne nag le combat ne fait que commencer ci jiitu mooy dem leen yéen ñëpp ngeen bindu ji yor seen carte électeur waajal parce que kuy dem ci tool ya da ngay yor sa ngànnaay waajal delluwaat leen yéen ñëpp à la base incha allah ñun dinañ sillonné yéen ñëpp dañ leen seet si waxtaan ak ku ne ku nekk ak yow fa nga dëkk xalaa xel xel yi du doy pexe yi jeexul yàlla xam na ni cerno Sall fii na xam ne fii wundu du fi naan ñeex mënoo diviser parti bi pour ràññee diviser na ne diviser na diviser na parti bi ñi mu doon tam ñi mu doon tam ba bër bërki démb tey nee na ñoo ñooy xaritam tey parti bi kan moo gës a mës a gis Thierno Alassane mu toog fii ci permanence départementale bi di wax kan moo mës gis yéen Thierno Sall dox ba ci biir këram ñëw ne ko dama lay jaajëfal wala mu yëkkati làmbañam wax wax lu baax déedéet day funkee ko mer rek boo naan kom comme copine copine la ëpp rek mu funki loolu duñ ko nangu loolu duñ ko nangu loolu duñ ko nangu ñun un bu dal lañu bëgg yéen may dégg may leen ma may leen ma may leen ma may ma dama bëgg ngeen xam ne mbir mi nag mi ngi doog mi ngi doog a nag taxaw mbir baa ngi doog a door xeex baa ngi doog a taxaw Thierno Sall ngir yàlla na dem Fuuta baa mu dem feneen comme nam ko defe woon premier tour 2012 voté siwul ba mbir mi sottee lay ñëw te dégg naa ko mu naan ba mu quand il faisait sombre ba mu faisait sombre moom kenn gisu ko woon wo voté jiwul premier tour deuxième tour ba ñu xamee ni daan nañ mbër bi ba pare ba mu nekkaat appi ci la ñëw naan jàppale ñu yeggale ko kon kooku ñun xam nañ ko xam nañ ni dafa tële c'est un incapable mënul dajale ñi deux pelés trois tondus li lim mën mooy diviser pour régner ak naqari deret ak jaay fu ak fayda fulla ak fayda nag fii la fekk paax fii ay Kajoor fii ay dëkk Lat Joor je vous remercie